tribunal ou bien kaso taxul ma daw yoota aw ma loo xamee ni dinaa ko tiit sama àdduna du dul damaa tooñ te man ni dal sama kaw xam naa lan la. yow da nga jàpp dafa ñu lay fexel wala non cest bu rëy am na ci. boo xamee ni lu leer la. complot bu rëy am na ci. jëm ci boo xamee ni bu leer la non du ma takkal opposition parce que je suis un musulman. Mm-hmm. du wax lu ma wóorul te du tooñ. mais xam naa ni complot am na ci te xam naa ki ma ko def waaye ki ma ko def nag bàyyi naa ko yàlla. est ce que bi ndax démission bi. waaw bi loolu après. comme ni mu loolu danañ danaa leen si wax après lu leer nañu bu subaa incha allah. mais mais ak lu mënti am mais ak lu mënti am. pour ma pour pour sama der man. waaw bu laajee ma setal sama der. Uh-huh. bu laajee bu ma ma démissionné mooy tax sama der set. Uh-huh. wala mu laaj ma démissionné mooy tax justice def liggéeyam. ma laaj bu laajé ma démissioné motax duma du le président Macky Sall dana ko def. parce que la démission a été confirmée hein waaw waaw man man paré na pour mais nak li ci dama koy sama avocat mu yeggali ko mu si ci yegg mais na xamni ni man bokkuma ko addu duma ma je vous remercie <laughs> <laughs> journaliste yi leen liggéey sama rek man dama leen di mais dafa kalaasu Ahmed Aïdara gi Aïdara gi ñoo yàq